voilà Koura gay également tay ginaaw rek jafe-jafe yooyu nga xam dund nga ko mm. euh, ba li nga xamante rek nekk na ab du sax gént waaye tegtal la bu leer nañ mm. li nga xamante gis nga ci président Macky gis nga ci Youssou Ndour gis nga ci Boubacar Diallo ak ñeneen ak ñeneen mu nekk loo xam day faral di la dal ginnaar bi nga xamantene yalla def na li nga xamantene tay mu ngi fi ya nga ànd ak sa febar lu toll ñett ba ñent wër nga nekkoon hôpital Saint Jean de Dieu tay jafé jafé yoyu gënt yoyu ak yi nga xam ne ngi koy gis lañ bëggoon nga leeralal ñu waaw loolu de boo ma ci waxee dinaa sawar ndax xëy na ku bëgg nit suñu boroom boole laa ak moom nga gis ay mbiram xale bu tuuti laa aw ma maa ngi sant yàlla bu baax keroog ba nga xamante ni gént naa ko c'était le crédit biñ ne ginnaaw suba la élection yi maa gént mu ñëw ci man mu ngi sol xaftaan bu bula sol euh, sol xaftaan bu bula ànd ak Youssou Ndour ak Boubacar Diallo bi mu ñëwé daf ma nuy ma fay ko mu ne ma yow lay set yaay talibé yi ne ko yow la kan mu ne ma man diw président Macky Sall dama bëgg nga ma ma gagné ci élection yi ko insha allah di nga gagné waye man dé nu may def ba ñaanal la si la ma benn kilifa bu mag feeñu ne ma ñaanal ko ñaanal ko boko ñaanalé dina gagné ko ha ah? mu ne ma ne ko kon dé dina ko ñaanal mu gagné waye dana ma amna sacrifice ma ko sacrifice lan mu ne ma sacrifice de di nga am sacrifice bu ñu dindi ci yow ma ko man mu ne ma waa mo ne ma même bu dee wé sax baax na ñaanal ko soko ko day toog ci réew bo xolam sedd rek mu dem wa ma ko kon de dina ko ñaanal ndax yag na ka top du tay bi koy ñaanal nak ma ñaanal ko mu ne ma tekki sama jaar bi ma tak ma jox ko ma tekki jaar bi mako koy jox ci sundur la jaar Youssou Ndour ko jël takal ko président Macky Sall wa bim ko ko takalé nak ci la dem ñu and daal di génn wa mané sama mam fek ma ngi moma entré hôpital ma daan nako mam gis nga ñima doon waxal ma dégg na la ngay wax dé mais gisuma koy waxal man ko ah man de diw mo ñëwoon ci man président and ak ak Boubacar Diallo de ñom la doon waxal pour ma ñaanal ko mu gañe ci élection yi waaye de nee nañ dinañ am lu ñu dindi ci man loolu day moo ma tiital sa maam ne ah waaye yàlla rek mën naa am da nga koo gént rek ma ne ko du gént janeer la ndax damaa wax ak ñoom ba ñu dégg ma may wax muy wax waaw léegi nag bi affaire boobu amee ci laa toog c'était le mercredi jeudi vendredi docteur bi jël ma rek ñëw solo ma lu vert rek yóbbu ma bolok daal di amputé sama tànk Saint-Jean de Dieu cees mhm. ñu amputé sama tànk vendredi biñ ko amputé ba léegi nag maa ngi nii barki dee mu nag jeudi encore damaa gént bu bakar Diallo ci boppam ñëw jox ma ak ceenu or bi ma joxee ceenu or bi ceenu or gi daa am croix catholique ma daan ne ko ah ceenu or gi ma may dadaa am croix catholique mu ne ma sam moo nekk président bi mu nekkee président mu def ma ministre ceen gi nag ay millions laa ko jënde indil la ko nga yokk ñu ñaan fa laa yeewoon. fa euh, tànk bi lan moo ci nekkoon. tànk bi dama lakk nee nañ ambulance bi may nga xam ne moom laa indee woon koor bi pour amul amul climatiseur. ma toog fi ma toog ci kanam nekke foofu la po échangement bi nekk. man maa ngi sol daal daal bi lakkul defu dara. waaye bi ma demee tànk bi daa futt. waaw futt bi sax garaawul woon maa ko toj. Mhm. Mhm. waaw. maa ko toj ca Mali sama kër. waaw bi ma ko tegee ma ne sama tànk bi de daa fut. xale yi ne ma dindi ko boo ko diwul day gën a sol ndox. ma daat koy dindi taxul mu metti sa suba ga sax dem naa intervention Thiès. Euh, euh, intervention chauffeur yu Thiès yi dëkk Madina Fall. am na benn chauffeur boo xamante ne apprenti daa daa def accident rey nit ci côté Sandré euh, ñu woomam ma xëy fajar. dem ci accident bi ma demee dañoo jàllale chauffeur bi yóbbu ko Nioro di Sahel. bi ma demee Nioro di Sahel góor ne ma demal Nioro di Sahel ma retourné Sandré dem Nioro prison bu Nioro di Sahel. bi ma demee ma gis procureur mu ne ma naa toog xaar ko falaa toog ba ay 18 heures ci koor gi si la ma si la si la ma procureur woo ma am lu ma defanteeg moom. lijjanteeg moom mu bàyyi xale bi maa ko indi ci guddi gi jéemaa gi ma dëkk ci guddi gi laa ko jox paas mu ñibbi. Sénégal bàyyi fa oto bi patron fii la dëkk ci Thiès moo ñëw jël si otoom yóbbu ko mu ñibbi koo xamante ne waroon nañ kaa tëj ay at waaw loolu yàlla may na ma ko Mali. waaw yàlla may na ma ko. procureur ku mu mënti doon juge ñëpp a ma xam ñëpp may ñëw sama kër. bi euh, bi nga xamante ni lakk nga ci nga indi kon 5 man bi ma xamee ne lakk na man sama patron laa woo góor ne ko papa man de sonn naa. maa ngi nii Nioro laa jóge léegi chauffeur bi bàyyi nañ ko ba libéré naa ko ñibbi na Sénégal parce que dañ ma naa ko génne guddi mu génn ñibbi guddi. léegi nag may man de damaa daanu mun ne ma daanu fan ma ne ko sama nekk damaa jékki-jékki rek crise daanu mu ne ma ah? ma ne ko waaw mu ne ma kon defal la tout nga ñëw Sénégal. góor su ma wooyee ne ma defal la tout nga ñëw Sénégal dafa may yox cent 100000 wala mu jox ma 50000. dama paasal nga dem Sénégal nu mu gën a gaawee. korité événement bu ma am daf may jox paas. xoolul li may fay de. waaw daf may jox paas bi ma ñëwee rek laa entré hôpital bi. ñëw na ba fii seetsi ma. te weer wu dee dina ma yónnee sama salaire ci hôpital ba. waaw ñëw na seet si ma hôpital ñëpp gis nañ ko. waaw. te bi nga xamante ne nii yóbbu nañ foofu tànk bi. waaw eh, lakk-lakk bi ci la commencé yëg kon. man daal. biñ ma bi ñu yóbboo tànk bi daal docteur bi bi mu ñëwee daf ma njëkk a defal opération bi ma defaree opération mu ne ma tànk bi dama koy xoos rek dindi ko ma ne ko dindi eh, góom bi rek dala du la jot ma ne ko waaw waaw parce que après nag si laa jékki-jékki rek ñu jël ma ñëw yóbbu bolog amputé tànk bi. amputé tànk bi waaw. Euh, léegi boobu ba léegi daal euh, mais yaa ngi ci jàmm. boobu ba léegi nag maa ngi ci jàmm. Mhm. waaw maa ngi faj sama bopp nag. yaa ngi faj sa bopp. waaw maa ngi faj sama bopp. Mhm. kii di euh, ñoom président ñu nga géntoon di Macky Sall ñoom Boubacar Diallo ak ñoom amul benn pexe bu ngeen def pour ñu yëg xew-xew bi. déedéet wax dëgg yàlla. Mhm. jéem ma benn pexe daal. jéem ma benn pexe ci loolu daal. dëgg yi ban appel nga leen di maa ngi leen di lancer appel rek li nga xamante ne moom lañ bëgg ci réew mi. yàlla dina leen ko yàlla may. Macky Sall moom day toog ci réew mi ba doyal rek mu dem. muy mille 2019 di 2040. day toog ba mu neex ko rek mu dem te kenn du ko sonal ci dara. mais nee naa ko ci biir gént gi. mu ne man parce que kilifa gi ma gis dana man nee ko ndax dina ànd ak noppi. ma laaj ko ko ci biir gént gi mu ne ma waaw du ma wax te loolu gis naa ko am na ci élection yi moo tax ma xam ne dina toog ba xolam sedd rek mu def kenn mënul ci moom dara bàyyee naa ko ak yàlla ak yonent bi ak Seydina Mohamed yàlla na ko sàmm. alors euh, léegi euh, soxna Koura tey ku amoon dimbal tey ci autorité yi wala keneen bëgg ñëw seet si la pour jàppale la wala sax président wala Marème Faye Sall wala keneen ak keneen euh, fan lay jaar pour jot la. man maa ngi fii ci Thiès fii laa dëkk ci Thiès kër maam alaaji laa dëkk ci Thiès waaw alaaji moom njëgeen mooy sama maam alaaji bu njëgeen mooy sama ak alaaji Muniru njëgeen xalifa bi mooy sama maam euh, say numéro téléphone waaw sama numéro téléphone 77 la 553 30 08 553 30 08 waaw sama numéro téléphone 77 553 30 08 Voilà. Voilà, merci. D'accord.